asalaamaaleykum mbokki jullit yi asalaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di dikkaat ak ci seen kër gi nii Faaida TV ci seen émission bi di l'islam ak jamono l'islam ak jamono nag niñ ko baaxoo di def ci kër gi doon njariñ kese ak oustaz Mouhamadou Amine Ndiaye xaalimul muslimin di ko ànd ak moom bis bu nekk ñu leen di indil ay njariñ yu am solo tey nag xam naa dinañ bàyyi tuuti ci thème bi nga xamante ni ñoo ngi ci nekkoon muy diggante ñaar yi way xam naa nag dañoo jub dañoo jub euh, farata goo xamante ni euh, suñu borom moo ko farataal ci ab jullit waaye doon loo xamante ni war na ci képp koo xamante ni ab jullit la rek mu doxal loolu muy koor gi nga xam ni jub nañ weeru koor waaye mën naa ni dugg nañ ci ndax bu neex yàlla suñu borom xam naa ni suba ak jàmm incha allah rabi ci la war a um koor. tey nag ñu bëgg a laaj oustaz Mouhamadou Amine Ndiaye xaadimul muslimin nan la ñuy dundee koor gi ak jamono ji nga xamante ni tawat yu metti ji mooy ci réew mi di coronavirus ñu gën koo xam tamit ci Covid 19 doon loo xamante ni euh, jaaxal na àdduna waaye empêché na àdduna bépp kenn dematul kenn dikkatul marché yi tëj nañ. koor gi xam nañ ni ko daan waajalee ak ni mu daan demee wax dëgg yàlla ci jullit ñi tey nag dañuy laaj oustaz Mouhamadou Lamine Ndiaye xaadimul muslimin loolu nan lañ ko war a dundee ak nan lañ war a wooree koor gi ci jamono ji oustaz ñu ngi lay nuyu. waaw Maxtaar di nuyu tam mbooleem spectateur kër gi di Faaida TV fu ñu mën di nekk ci biir mi ak bitim réew di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa Eh, su ko defee ñuy ñaan eh, suñu borom subhanahu wa taala nga xam ne dara tëwu ko te moom mooy ki nga xam ne moo yore suñuy mbir te lépp lu ñu dal muy bànneex ak naqar moom borom subhanahu wa taala ci kattanam la amee ak nammeelam ñoo koy ñaan tawat ji nga xam ne dafa gaar àdduna bi yëpp yàlla na ko teggi ni gën a gaawee ci barke ba euh, weeru koor bi nga xam ne nii moom lañ dëgmal tey sax dafa mel ne am na ay bokki jullit yoo xam ni um nañu euh, tey te lépp nag di lislaam ndax lu ci nekk rek Yonent bi sallallahu alayhi moo ko jàngale nii weeru koor moom képp koo xam ni gis na ko wala ku la doy informé la ko rek bu boobaa mën nga daal di um sa weeru koor kon ñoo ngi ñaan suñu borom defal ñu ci tawfiix Mm-hmm. waaw mu mel ni comme ni ma la ko waxee léegi rek. nga mm-hmm. xam ni leeral yi nga xam ni moom lañ bëggoon nga leeral ñu ko ci koor bi. ni ko mm-hmm. jullit ñi daan dundee rawatina Sénégal nga xam ni réewu teraanga la ñuy wax. waaye rawatina jamono yu weeru koor bernde yi daan na bari. waaye li nga xamante ni tamit moom la lislaam euh, sant jullit ñi ci wàllum naafile yi daan def ak jamono gi nga xam te ni couvre-feu bi am na. ñuy laaj leeral yooyu nan lañ ko war a dundee. waaw suñu waxtaan xam naa loolu lu am solo la parce que euh, l'islam lépp daf ko programmé tey dafa sóoraale circonstances yi nga xam ni doomu aadama yi mën nañ koo am ci seenu ko dund ndax comme diine la xam ni ki ko euh, indi mooy yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa waaye mu jëlee ko ci ki nga xam ne nii moom moo kere doomu aadama yi xam seen njëkk xam seenu mujj kooku prévoir na lépp donc weeru koor weer la woo xam ne ay ngëneel yu bari daf cee aju tey weer la woo xam ni yaakaar naa ci suñu émission yi njëkk ci islam ak jamono am na luñ ci leeraloon jar ñu ci dellusiwaat ngëneel yi waxoon nañ ci lu bare bari waaye daf ci am ay xeeti jaamu yàlla yoo xam ne ku ci sopp lool jaam ñi di ko ci def ba ci gën a ràññeeku mooy li ñuy tuddee salaatu taraaweex muy naafile bi nga xam ne dañ koy faral di def ci. jàkka yi euh, te ren ji mu tombeek euh, couvre-feu bi nga xam ni xëy na dañ koo tëral pour gën maanaam ñoŋal askan wi gën leen a aar ci tawat ji nga xam ni nii tawat la ñuy wàlle te it loolu noppi woon nañ ci lislaam waxoon nañ ci lu bari mbirum quarantaine wax nañ ni euh, yonent bi sallallahu alayhi moo ko njëkk a jàngale moom mi nga xam ni dafa mat te jiitu doomu adama ci civilisation ak ci lépp waxoon na ni feebar buy taw la muy mbas bu leen fekkee ci am réew réew moomu na ngeen fa toog bu leen fa génn waaye bu ngeen ko déggee ci am réew tamit bu leen fa dem nga xam ni kon wàllante boobu la yonent bi jàngale foofu comme loolu moo tax nag xëy na ñu tëj jumaa yi ak jàkka yi pour daw ko ci li nga xam ne mooy jullit farata te mooy ajjuma ajjuma farata la ci ab jullit mu dem defi ko ba mu benn empêchement te dem julli ji li nga xam ne nii mooy euh, trawih muy naafila weeru koor du farata sunna mu akkada la waaye àggul nañ ci farata donc ndegam lee ci lañ tëjee jumaa nag euh, li mënta wax kon manees na koo def ci biir kër yi delloowaat ko ca cosaan ndax ñiy gëstu li nga xam ñooy historien islamique yi ñoom xam nañ li may wax salaatu trawih ci cosaan kenn daaw ko def ci jàkk yonent bi dund na ba jóge fi moom saxaaba yi ci seeni kër lañ ko daan def donc jullee ko ci jàkka ci jamono Seydina Omar la amee mm-hmm. Seydina Omar bi mu gisee saxaaba yi def ko mu rafet mu ni ni'ma bidaa alxasana mm-hmm. maanaam ndaw bidaa bu rafet ndax bidaa mooy loo xam ni yonent bi mosu ko def ci dundam ah. après bi ñu fi jógee mu sosu mu am def ci am nag bidaa bu ñaaw boo xam ni lislaam gën am bidaa bu rafet julli googu nañ ko salaatu tarawih eh, ci cosaan yonent bi ci kër yi la santaanoon ñu koy def kon jamono Seydina Omar lañ ko yóbbu ci jàkka yi. Ah, yone Seydina Omar kon maanaam nga baal ma. Hmm. maanaam manees na koo def ci kër te dara du lañ. sans problème sama kalaas yi dafa jàppoon ni buñ ñu demoon ja naa fi la rek kon suñu koor du baax. waaw am na ñoo xam ne sax suñu Maxtaar dem nañ ba foog ni hmm. maanaam buñ naafilawul amuñu koor bu wér te naafila gi ni ma ko waxee sànq du farata hmm. yàqul ci koor gi dara waaye nag day yokk tuyaaba ji ndax sallallahu alayhi wa sallam moo man qaama ramadaana imaanan wa ihtisaaban gufira lahu ma taqaddam nee na képp koo xam ne taxawee na weeru koor taxaw guddi yi di ci def ay nawaafil lépp lu mu jiitaloon ci ay bàkkaar ci ak dundam dañ ko koy jéggal dañ ko koy baal donc kon loolu moo tax julli ni di ci xir di ko def mais def gi nag ci jumaa mooy jumaa néegu yaa jàkka néegu yàlla te yàlla néegam boobu maanaam mi ngi fépp waaye daf ko fonk ñaareel bi mooy jamaa bi muy mbooloo ku nekk xam na ni euh, li ñuy wax li ñoo fait la force yonent bi moo ko njëkk a jàngale muy aljamaatu rahma mbooloo yërmaande la wal furqatu azab maaye tàqaliko nag mbugal la looloo tax ñuy dem di ko def ci jumaa yi di ko def nag li nga xam ne ni mooy ci mbooloo mais tërëwul jamono bi ñu toll si maxtaar muy jamonoy couvre-feu bi nga xam ni waxtu woowu ñuy def naa fil day fekk nit ñi fàttu seen kër ngir xëy na sol bi ñuy sauver seen wér yaram bu boobaa borom kër bu nekk mën naa dajale mbooloo muy njabootam ci biir kër gi ñu julli ko fa ñu julli ko fa ndax salaat trawee bu ko nit ki jullee individuellement wér na waaye su ko defee mbooloo wér na donc ñi nga xam ne gisul ku ko jiite ci biir këram mën na koo def mu doon loo xam ne nag gëcc euh, gën a ne mooy ñeenti rakka yoo xam ne day am sëlmal da ngay julli ñaar defaat ñaar da ngay julli ñaar sëlmal defaat ñaar sëlmal def sa safaak wetal bu la neexee tam nga def ko gën ngaa bari fukki rakka fukki rakka yooyu euh, yonent bi moom la daan def mooy nga def fukki rakka yoo xam ne da nga koy tàqale ay sëlmal su ko defee nga def li nga xam ni mooy safa ak witar beneen bi nga xam ni ah, am na solo te ma dégg ko ci sa biir question euh, mooy wàllu xëy na marché yi tëj mën naa indi ay jafe-jafe waaye nañu xool bu baax objectif principal bi tax koo ñëw bokk na ci mooy jàngal doomu aadama li nga xam ni nii mooy muñ jàngal doomu aadama li nga xam mooy économisation corps philosophie bi mu àndal yooyu na ko ci nit ñi jàng mais malheureusement dafa mel ni nit ñi koor la doon jàngale contraire loolu la ñuy jël ñoom. contraire la contraire mooy yàq. mooy yàq te koor ñëw bu jàngale économisation. maanaam nga gën a man a économiser kon bu tombee ñu tëj marché yi loola warut a euh, tax kenn désolé wu maanaam nañu wàññi lekk gi ndax même Sëñ Tuubaa ci Masaalikul Jinaan Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mi ngi wax ni ki nga xam dafa woor ba ngoon jot muy lekk lekkum nag bu tëddee. loolu dootul xelam dootul nekk ci lu dul nelaw lu tara sax naafila nga xam ni lekk bu bari googu suñu mbokk njóobee gi nga xam ni macha allah bu ñu wooree ba ngoon dañuy bëgg li leen rëccoon lépp ci bëccëg bi ñu dabaatal ko loolu du dëgg-dëgg koor tey Sëñ Tuubaa nee na dafay wàññi yoolu koor maanaam bu dog jotee nga bëgg maanaam lépp lu la euh, rëccoon ci wàllu lekk nga bëgg ko rattraper loolu taxul woon ñu wax koor parce que koor dafa bokk ci philosophie bi mooy économiser économisation bokk na ci tam patience muy muñ ndax koor lim lay jàngal ndax xoolal sëñ mataar ki xëy ki xëy fajar ba am heure mu muy xaar pour lekk kooku patience lay jàngale ci dundu doomu aadama heure boobu fekk jotul doo lekk mooy jàngal nit ki lu muy wut te jotagu ci na tey na am patience nit tamit jóge ci foqale en même temps jóge ci foqale jàngal boppam li nga xam ne nii mooy mooy maanaam yamale ak lekkam euh, beneen bi ci am tam euh, muy philosophie bi ci nekk mooy wàllu sanitaire bi. koor dafay wéral loolu sax même médecin yi nga xam ne ñoo nekk ci jamono bi trouvé nañ ni koor dafay maanaam wéral appareil digestif yi muy appareil yi nga xam ne dafay dafay dafay reesal ñamu doomu lool te loolu yonent bi caxoon na ko wax ne suumu tasixu euh, woor leen ngeen mbir woor leen ngeen mbir moom nag détaillé wul waaye nekkate booba li mu doon junj mooy koor dafay wéral appareil yi nga xam ni mooy reesal euh, ñamu doomu aadama kon yi baris na koo mën a jàng ci koor ngëneel yi ci nekk nag moom kenn xam nu mu toll am na ci loo xam ni leeraloon nañ ko yaakaar naa ci suñu émission yi nga xam moo jiitu woon sëñ Maxtaar macha allah Oustaz Mouhamadou Lamine Ndiaye xaalimul muslimin mm-hmm. mu mel ni xam naa ni leeral yu ci bari incha allah rabbi dina gën a dikk sax ci yeneen jotaayu koor allah rabbi xam naa sa kàddu gu mujj rek li ngay tàggatoo ak waa Sénégal waaw suñu kàddu mujj sëñ Maxtaar mm-hmm. mooy di dénk jullit ñi ni leen ñoo ngi ci weeru yërmande weeru yërmande nag eh, da nga ciy profité weeru occasion la weeru promotion la ni ñu koy waxee ci jamono bii weer la boo xam ne nii lépp waaye def rek suñu borom daf koy ful fulandi weer la boo xam ne yàlla def ci jigéen jaamam weer la woo xam ne tam yàlla ci lay xamee ñi dëggal ak ñi dëggalu ndax nee naa la koor naa fekk mënu ko naa fekk mën naa julli ak jullit ñi ànd ak ñoom jullit naa fekk mën naa sax aji màkka pour ñu ni ak jullit la te fekk dafay def ay dafay espionné naafiq mën naa def maanaam lépp waaye koor naafiq mën ko suñu waxtaan ndax koor kenn koy contrôlé nit ñi mënuñu koo contrôlé ndax imaginer ki nekk ci biir néegam frigo bi ne ci wetam mbooleem film yi mu koy gis mu ne du ko laal du ko lekk ngir ni kooku kon gëm na existence borom bi subhanahu wa gëm na ni am na benn benn maanaam kenn koo xam ne mi ngi présence il est toujours présent ci wetam di ko surveiller kooka tax lekk ko kon koor euh, naa fekk mënu ko yàlla rek moo koy contrôler kon weeru mel noonu nag nga xam ne yàlla def ci jige jaamam ñi xam ni lii ñi koy def mooy sama jaam ñi ma gëm ñoo koy def loola jaam ñi nañ ci maase maanaam ñaan borom bi subhanahu wa fi bi nga xam mooy Covid 19 mi nga xam ne dafa lëmbe àdduna suñu borom mën na ko te am nañ ci yaakaar ni dina jeex ci weeru koor bi incha allahu taala di e, jox di daje bokk incha allah ci beneen jotaayu islaam ak jamono. wasalaamaaleykum. rahmatullahi wa barakaatu. macha allah oustaz Mouhamadou Amine leeral yi am na solo macha allah mbokk yi nga xamante ne yéen yéen a ngi siiwal seen kër gi di Faaida TV ñu ngi leen di bëggee di leen kontaane bu baax a baax gis nañ message yi nga xamante ni yéen a ngi koy jàllale ci commentaire yi commentaire yi yëpp macha allah ñu ngi koy bëggee macha allah di leen jox dig daje ci seen beneen numéro l'islam ak jamono ci seen kër gi di Faaida TV wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.